أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokku jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baal xaq di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala baal di am mbégte di dalal ak yéen ci émission bii naan alhuda di ko amal fii ci Thiès 24 tey nag ñu am tiis di waxtaan ak yéen ci xew-xew bu doy waar fee ca Ndar quartier bu naan Guet Ndar Guet maire ba nga xamante ni moom lañ fa teg ngir mu war a liggéeyal société bi war a liggéeyal askan wa deful lu dul jumaa yi ak jàkkay suñu borom subhaanahu wa taala xam ci la ñuy saxalee kalimatul xaq mu toj ko kooku nag dama yàpp ni manque compétence moo waral mu def ko ndaxte assainissement moom mooy cause bi bi mu wax ni moo waral mu toj jàkka yi su fekkee ni dañ laa tànn ci xam-xam ak ci doylu ak teg la fa ngir nga jiite nit ñi war nga am xam-xam boo xamante ni tey jii bu la leeree ni jàkka ji boo ko tojee mu indi mu indi effet bu rëy ci ci diina ji nga xool feneen foo xamante ni mën nga faa jaar ba li nga bëgg ndaxte tey jii toj kër sax moo gën a yomb nga toj jàkk ndaxte boo tojee kër di nga jox nit ki mu dem wuti feneen foo xamante ni fan la nekk tey itam tey jii su fekkoon toj nañ fi kenn sa xabru maam wala sa jumaay maam tey jii kenn dootul dégg waaye xëy na yàlla mu daanaka fi mu nekk euh, la yàlla xam doy na fi mu nekk nit ñi mën nañ ni seen intérêt bopp sax moom moo leen gën a jege ka loo xam te dafa jëm ci yàlla direct mu doon lu doy waar loo xam te ni métti na jullit di lool ñuy ñaan nag suñu mbokk yi ñu xool ndànk def ndànk rek bokk te te trouver terrain d'entente ba bàyyi xeex bi te itam dalal seen bopp. ndaxte jumaa dafa doon loo xam te dafa am solo ci diine yoon saa salaam keroog bi mu jógee Màkka jëm Medina nga xamante ni noonam mi wan na leen ginnaaw ba jëm ci soppe mi Médinatul Quba muy ci entrée Medina bi. yoon sax ba mu ñëwee foofu ci benn ngir gu naan euh, bani amru ibn auf yonent bi sax campé fa mook saxaaba yi 14 jours yoo xamante ni ñook saxaaba yi ñoo fi nekk lan fa njëkk a def mooy tabax fa juma yonent bi moom ci boppam da doon ànd ak saxaaba yi di liggéey juma jooju te tam wax na ni suñu borom subhanahu wa taala bu doon am wàccuwaay ci kaw suuf ñetti kër yi la am muy màkka walillahi alhajjul bayt ñaareel bi muy al jàkka yi wa anal masaajida lillahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadaa ñetteel yi mooy xol bu jullit bu sellal yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa fonk jàkk lool ndaxte jàkk moom mooy jàkk moom mooy euh, daje daje gi nga xamante ni ci la jullit yi di daje ngir di islam mën am uquwa uquwa ba pare mën a am quwatul euh, iqamatu diin muy euh, liaison bi nga xamante ni moom la doon liaison familiale te itam ci na ci lañ mën a am kattan ci lañ amoon doole ngir mën a taxawal diine kon nag ñi ngi naqaru baax ci ñàkk gi ñàkk a gis kilifa diine yi wax ci te loolu doon waroon naa doon loo xamante ni ñëpp waroon nañ cee waxtaan xam naa ni dañuy def alerte ci suñu maire boobu rek bu ko defee mu xool noo xamante ne dina jubbantee loolu ma def ci tabax leen leneen jumaa ngir euh, dalalee ko seen xel wala mu xool neen loo xamante ni ñoo ko def ngir mën a am euh, mbégteem jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh